ñoom lañ ko jox tali tubaab yi lañ ko jox cest à que il suffit pas de changer de nom hein, pour changer quoi que ce soit pour man li ñu war a changer moom moo gën a fondamental moom mooy que ñun nan la ñu war a mën a indépendant we ba nga xam ne yii ay ay ay ay fédère ba ay pont kii day nekk ay détails parce que pour man c'est des détails lan la ñu war a euh, retenir lan la ñu war a retenir ci tubaab yi ak lan lañ ci war a bàyyi lan la ñu war a créer suñu propre histoire ñun nan la ñu war a si suñu nekkin ñu indépendant si ni ñuy waxee si ni ñuy jëfee si ni ñuy xoolantee ci suñu mentalité suñu état d'esprit pour man réew buy changer mm. état d'esprit mooy changer lépp état d'esprit moom mooy changer euh, kii statut mooy changer monument donc loolu la ñu war gën a attaquer parce que doole jooju ñuy def dañu nekk ci dëkk yoo xam ne affaire mën na am bruit boo xam ne dañu foog ne ñi ngi ñi ngi changer dara fekk à la limite c'est pas important nañu am fitu indépendant si yi nga xam ni moom mooy mooy mooy ay ay ay ay ay ay base yoo xam ne dafay war ne suñu suñu dëkk bi dafa nekk dëkk bu souverain c'est-à-dire que dëkk pour nga mën a prétendre di changer ay tour ak ay mbir yooyu il faut nga prétendre moom sa ndox moom sa courant moom sa téléphone moom say euh, euh, supermarché moom moom dara moom sa pétrole wala moom sa gaz wala moom sa zircon wala moom sa dara et nous aujourd'hui pour man lii c'est pas le plus important le plus important moom mooy que nan la ñu war a mën a jékki-jékki yeewu ne bon ok tubaab bi ñëw nañ fi coloniser nañu dem nañu mais est-ce que dem nañu. Hmm. est-ce que dem nañu bi nag c'est pas euh, benn pont fédère boole dara pour man dañu war a gën a accentuer euh, xeex bi si dëkk bu indépendant au vrai sens du mot pas rek turu indépendance place de l'indépendance mais est-ce qu'on est indépendant ñu ngi fi chaque vendredi ñu ngi fiy di ci wax. boo fi doon jóge léegi di dem di dem euh, aéroport Blaise Diagne mais boo jaarul ci tali tubaab bi doo dem boo jaaree ci tali tubaab bi foo taxaw di jënd essence euh, entreprise française moo fa nekk boo duggee ci banque bi entreprise française moo fa nekk donc en réalité qu'est-ce qu'on change est-ce que c'est le plus important le plus important pour man mooy que ñu commencer bi xool dëkk bu dëkk bu am fulla ak fayda moom mooy da ngay fexe même bu nit jógee extérieur di fa implanter dara da ngay fexe ba mu nekk mu mu nekk win-win nit ñi gis que ni réew mi ci boppam am na ci ay intérêt yu am solo te loolu non de der bàyyi dama daaneel te loolu. il faut ñu waaw non non non parce que loolu il faut ñu jàngat si hmm. exactement ñun quoi par exemple dama lay jox benn pour pourquoi benn autoroute bu am ah on on retrouve que des des des des des des entreprises françaises yuy liggéey ak ñoom. xam nga loolu c'est une grande question ça veut dire que on n'est pas ñun li ñuy ñu bëgg amuñu ko amuñu dara lu ñu maîtriser donc il faut pas il faut li xew ci àddina bi actuellement ñuy daaneel statut ak affaire yi ñun ñu ñu jóg songu ko alors que les choses les plus fondamentales hmm. attaqué wuñu leen ni ñu leen war a attaqué